ma la ci xibaar yi gën a cee fas tey ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars nag yem ak fukki at yoo xam ne président Macky jël na nguur gi euh, ku ci nag ak noo ko gisee moo xam pouvoir wala opposition dañ ci ànd gën ci biir xibaar yi FRAPP Y'en a ak yeneen i kuréel société civile nag euh, joxati baaraamu ñii di waa police Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal nag dañoo fas yéene sax dem euh, fa ma xam ne doone benn biti réew ngir daal ne dañ leen toroxal ci fanweeri fan ak benn muy législative yi ci weeru juillet li nag di mbirum bant daal la ñu gis foofe ca Touba Mbacké ndax am na ñoo xam ne dañoo yore seen i ngànnaay dem attaqué ab kànkaayeri ca quartier ñaari pna kii moom nag boobulee kànkaayeri ak jax baatam dañ leen sax jot a gaañ li ñu amoon ci bës bi yëpp la ñu jël yóbbu ñaxal pàcc xibaar tàggat yaram dañu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne yéene keeg Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Assane Diouf may sambay moo nekk digital Seydou dal leen jàmm ñaareelu alternance ci wàllu politique fii ci Sénégal nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars 2012 woon mu yem ak tey ji nag muy fukki at yoo xam ne président Macky Sall jëloon na nguur gi ci ñaareelu tour ci élection présidentielle lañ doon amal fukki at nag yoo xam ne euh, ku ci ne ak noo ko gisee ci wàllu politik waaye tamit yoon li ci nag euh, rek am mooy euh, pouvoir moom jàpp nañu lépp lu ñu waxoon def ngir dal euh, lu jëm ci démocratie ak taxawu askan wi daanaka def nañu ko opposition moom dañoo jàpp ne pouvoir dafa rek làmbatu ba sax waral askan wi leen sax duñu xam fu ñu jëm Abdou Diouf ci ay leexal fukki at la yoo xam ne ñenn ñi dañoo jàpp ne lu baax laa ña ca des jàpp ne am nu lu bari loo xam ne mënoon nañ koo def te defuñu ko Zahra Iyane Thiam mooy jëwriñ bi ñu denk wàllu microfinance moom li mu jàpp moo di ne am na ay mbir yu bari yoo xam ne def nañ ko ci réew mi. mbay mi nga xam ne dañ ci def suñu yaakaar lool pour mu mën a tirer croissance bi def nañ ci investissement yu bari en termes de modernisation d'équipement ci wàllu infrastructure yi nga xam ne dafa bokk ci luy tabax koom ci biir réew piste de désenclavement yi la moo xam ci wàllu transport de masse yi yooyu yëpp dafa am ay jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci ay koppar yu bari génn nañ ko dugal ko ci ay programme ak li ni mel waaye li Lamine Ba di naqarlu moo di amul njeexital ci askan wi moom mooy président bu fédération nationale des cadres libéraux investissement yooyu lu baax la waane dafa am lu ñuy wax priorité ci am réew train bi lu baax la mais daf ko lépp gàddu ko sénégalais yi war ko fay moom Lamine Ba dafa jàpp ne ñàkkum xarañteef boobee lépp li mu jur moo di askan askan wi mu ngi jamono ji ci ndool gu lees mënta wax sénégalais yi ñu ngi bëgg dee courant bi dafa cher ndox amul ci dëkk bi njàng mi dafa sooxee mbay mi dafa sooxee napp géeg yeneen foofa dem gis fa ay tolof tolof yoo nga xam ne ni tey sénégalais yi ñu ngi jaaxle Zahra Iyane Thiam moom dafa jàpp ne fukki at yi weesu moom ñu ngi ko doon liggéey rawatina ci fexe ba kenn ku nekk gis boppam ci réew mi infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ko concentré pire Dakar ñu demee gu da ngay gis ay infrastructures yoo xam ne nit ña fa ñu dëkk bëgg nañ lépp luy service public ñu mën a jëflanteeg ñoom foofu. ci lu jëm ci wàllu politique moom ñaari wàll yi dañoo wutee gis-gis. bu génnee ci élection bu mel noonu nga jàll ci premier tour. nga taxaw ne nañ toog waxtaan ndax réew mi ñoo ko bokk kenn ku ne war na mën indi xalaatam. ci mbir mi dama naan loolu aussi bilan la buy bokk ci gouvernance président Macky moom rek moo am sañ-sañu changer loi teg ay loi yu nga xam ne nii moo koy may mu gagné ci loi yooyu di écarter ay adversaire am ci loi yooyu lay indi ay mbir yu mel ni parrainage ay yeneen ak yeneen ak yeneen tey ji ci àjjuma ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2022 ci la Macky Sall di jeexal fukki at yoo xam ne def na ko ci bopp nguurug Sénégal fukki at la yoo xam ne lu bari weesu na fi ci ay jafe-jafe rawatina ci wàll politique ak wàllu koom ak mbiri askan wi gis-gis yi waroo ci ne la mu def baax na am baaxul yoo xam dafa yem ak sax ren jile ak élection législative yu war am fanweer fenk nag benn ci weeru juillet bi ñu dégmal ay parti politique ak coalition nag euh, ñoom daal dañoo taxaw ne du ñu ànd ak lii di système parrainage bi ni ki nag euh, barki démb sax mouvement yi di frapp euh, yanamar ak yeneen i kuréel ca ci ci société civile nag ñoom dañoo daal taxaw ne du fi am waaye nag ñun tam yëkkati ay kàddu ne am na ñi bokk ci ñoom daal yoo xam dañ leen a toroxal police moom moo amal ni nu mel ñu teg leen loxo gannaaw marche bi ñu doon amal Euh, ci wàllu parrainage bi gii Marius Sagna nag ak ñi sax fa yéene dem ca fa mbaxan doone benn biti réew ngir nag lii moom ñu amal ci ay daan ñu déglu moom it Guy Marius Sagna ci micro beeg Lansana Coly. 2022 ñu naan Macky jël na Sylvestine yóbbu na ko technopole Macky Sall jël na xawma Taïga ak Gaajo sànni na leen ci àll Sococim Guy Marius Sagna jël nañ ko sànni nañ ko ci àll Thiès bi ñoom ñëpp dinañ leen wax. Dame Mbodj jël nañ ko xaw ma Tivaouane Pël xaw ma Kër Massar lii buñ ko seetaanee beneen yoon Fatick wala Tambacounda lañ ñuy sànni déedéet beneen yoon sax da ngeen di dégg ne dañoo disparaître totalement de la surface de la terre c'est extrêmement grave ça c'est de la torture torture mooy infliger une souffrance loolu mooy torture nous avons été torturés plainte moom mënuñu ko ñàkk déposer torture bi ñu torturé dañ koy documenté tous les commissaires de police impliqués plateau les commissaires du commissariat central dinañ def lu ñu war a def ngir saisir ONU ñu moom bu yóbboo ñu xam ne dootuñu demati benn opération internationale ndaxte bu ñu bëggee tabax kër foofu lañ jëm à la comme à la jëm nañoo jokkoog police euh, waaye mujjul antu ñu waxtaane leen di kuréel bu boole jirmi ca première guerre du golfe nag ñoom it dañoo fas yéene dem fa ca mbaxane doone benn ba ci biti réew nag ki leen jiite ne nag jot nañu sax euh, jël ab awaka foofa ca baxo bu Lyon li ñu nag laaj mooy daal ndàmpaay bi nga xam ne dañ ko joxoon euh, seeni wayjur ñàkkoon seeni bakkan ci boobule guerre du golfe Cheikh Arona Badji mooy seeni kàddu ci micro beeg Omar Mbaw sunu Euh, kii avocat parce que gisuma ko dégguma ko deful benn réaction te collectif bi ñoo ko jëloon ñun orphelins yi nekkatuñu ay xale te xam nañ fu ñuy teg suñu tànk bu baax gis nga euh, problème bi dañ koy internationaliser du des fii te incha ñu koy yëgal ñëpp nag ñu xam ko xeex bi dañ ci dem à bout on a vu notre avocat bi nga xam ne bu bees la au niveau du barreau de Lyon te incha allah di ngeen ko dégg su lu néew problème bi toogatuñu di xaar ay état ak nangam sangam nañ dee ñun dañ de bëgg a dee dem fekk suñuy papa parce que honneur taxaw si parce que dañ leen honoré wul état du Sénégal honoré jàmbaar yi 31 ans ba léegi ñuy toog di ko yuuxu fu nekk yuuxu nañ ko bind nañ lettre def nañ lu ne fekkoon bëggoon nañ ko léegi duñu egsi fii ñu egsi fii parce que état ñun xam nañ li mu bëgg a def dina ko def si ay fraction de seconde kon mbir mi nag comme que egg na fii ñun bañatuñ si dara juróom ñetti waxtu teg na fukki simili fii ci RFM RFM rajo askan wi ci RFM Seydou Assane Biram Diouf moo nekk ci machine bi euh, may sa mbay ci digital bi ñu waxtaanee ni ñu war a gérer carrière magistrat yi fii ci Sénégal nag loolu nag waral na ba. ab ndaje am ci ñi ko nag taxawu di ministère bu justice foofe ca Saly Portudal ci diiru ñaari fan nag ñoom ñi di yëngu ci wàllu woowee nag dinañu jokkoo waxtaan ci ab euh, texte daal boo xam ne dina leen dimbali ba ñu samp ab dispositif ngir daal ñu fexe ba ñu évaluer magistrat yi magistrat bii di Abdoulaye Ndiaye moom mooy directeur des services judiciaires ca ministère bu justice ci micro beeg Abdourahmane yi moom mooy suñu tribunaux yi nga xam ni ñoo nekk Dakar dañuy euh, liggéey ci benn texte boo xam ni euh, dañuy xool ku nekk lu muy liggéey kilifaam chef de juridiction wax lu mu ci xam note ko alors euh, texte bi ñu président de la république mu ko signé yàggul am na lu mat ñaar ba ñetti at ci ginnaaw direction de service judiciaires ñu ngi ci doon liggéey appliqué ko ba nga xam ni tey magistrat yi nga xam ne ñu ngi liggéey Sénégal yëpp xool seen liggéey ñu noté leen ministère de la justice dinañ mën a gën a notation yooyu ci nomination yi ministre de la justice euh, santaane na service yi nga xam ni ñoo ciy liggéey notamment direction des services judiciaires ak direction de la dématérialisation ministère de la justice ñu gën a baral xarale yu bees yi ci tribunaux yi parce que bu ngeen demee tribunaux Sénégal yëpp aujourd'hui am na ay ordinateur am ay matériels yi nga xam moom la ñuy liggéeyee mais dañu war a gën a baral liggéey bi ba dugg ci processus digitalisation nit tey mën na soxla casier judiciaire par exemple mu jël téléphone portable am tey xam na ne xarale yu bees yi àddina bi yëpp dañ koy utiliser nit aussi mën na soxla benn information mu dugg ci site internet ministère de la justice et puis daa di am information bi dématérialiser euh, système bi ensuite ñu utiliser les moyens yi nga xam ni tey jii mooy xarala yu bees ñëpp di liggéey ci administration Sénégal bi yëpp. ñu yokk seeni payoor ci téeméer boo jël ñeent fukk waaye tamit ñu euh, jox leen jumtukaay euh, yu tax ñuy wax ci seen liggéey waaye tamit waxtaan am. seen digganteeg euh, ki leen jiite li nag mooy li nga xam ne euh, moom la intersyndical bu boole liggéeykatu Sen'Eau nag bëgg mu daal di am ñu sax fas yéene saisir lu yàggul dara inspection du travail ngir euh, loole daal di am El Hadj Malick Lay moom secrétaire général adjoint bu boobule kuréel mu ngi ci jokko bekk Jean Pondo. dafa am ay poñ yu ñu tënkoon ñun ak gouvernement du Sénégal. gouvernement du Sénégal nag ci poñ yooyu ñu tënkoon bokkoon na ci augmentation. de salaire boobu quarante pour cent bokkoon na ci itamit ñu joxe àq ak yelleef yi nga xamante ne ni moom la liggéeykat yi nekk ci biir bi bi entreprise bi am mu dem ni ki ñu jox leen matériel boo xamante ne nii ay jumtuwaay yoo xamante dañ koy liggéeyee waaye itamit ñu indi ay recrutement yoo xamante ne dina mën a tax lu lu fukki nit waroon a def te benn nit di ko def ñu mën ko jox ay doomi aadama jox ko ay doomu réew mi ñu liggéey waaye dañuy nekk di def ay contrat yoo xamante ne ay soixante lañ ciy fay ay nit euh, ni day liggéey ba dee te li nga xamante ne ni moom lañ ko war a fay jox ñu ko ko jox ñu ñu matawaay jox ñu ay jumtuwaay ak ak yelleef yi nga xamante ne amoon nañ ko yëpp ñu ngi koy faagaagal di ko rocc par benn benn di ko ronc par benn benn ba mu ngi bëgg a jeex ju bëgg ñu nasaxal suñuy kuréel tey nag dañoo daje woon pour wax opinion bi avertir di yëgalawaale itamit gouvernement du Sénégal ni ko li nga xamante ne moom ay ponc la woon ñu tënkoon ko ñun ak moom seen o respecté wu ci dara ndax directrice générale bii nga xam ne moo fi nekk muy madame Jenny Arnal Touba boobu respecté wul nga xamante ne ñooy liggéeykat yi respecté wul itamit ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, euh, délégué du personnel yi. waxtaanee leneen CDEPS di conseil bu boole diffuseur ak éditeur de presse fii ci Sénégal nag ñoom nanguwuñu daal li kii di Mamadou Ibra Kane mi leen jiite bëgg a tekki ndombal tànkam ñu sax fa yéene jëlay avocat ngir daal di ko taxawu. conseil ba nag daal ñu amal nit ki démb seen assemblée générale ne daal mbir bi nga xam ne moom moo daal di boole moom it di Mamadou Ibra Kane euh, jiite CDEPS ak kenn ci ma doon liggéey nag manga ba tey ca yoon te amul fenn foo xam daal dañ dañ ko daal di condamné kon daal moom it di président bu CDEPS mën naa ba tey wëyal liggéeyam. ak RFM ñu wutali Touba Mbacke am na nag ñoo xam dañu yor seen i ngànnaay daal di dal ci ab kànkaayri ka fa woon nag moom ko ak jarbaatam sax ñu jot leen a gaañ la fa newoon ñu liggéey ko ca bés ba yépp lañ jël yóbbu Papa Lagay ci ay leeral. ñaar ñu am gaañu gaañu ak lépp li nga xam ne moom la ñu jaay ci bés bi moom la ñu daal di yóbbu ci braquage bi nga xamante ne moom moo am ci quartier ñaari pënë nekk ci diwaanu Touba. suñu sukkandikoo ci ay xibaar daanaka bi juróom-ñetti waxtu feggee fanweeri minute ci alxamis gi ca la ñi nga xamante ne ñooy def ko ñaar ñaawte fii daal di wàcc ci ab oto 4x4 dugg ci kenkaayere bi daal di gaañ ki nga xamante ne moom mooy borom kenkaayere bi gannaaw ay marto yoo xam ne moom lañ ko dóor ci digg ginnaaw ak jarbaatam bi nga xamante ne moom bal lañ ko daal di ci tànk ñoom ñëpp nag jamono ji ñu nekk ca l'hôpital Matlaboul Fawzeyni suñu sukkandikoo ci yenn ci ay seede yu njëkk lu tolloo juróom benn ci ay defkatu ñaawteef ñoom ñoo daal di muur seen kanam dugg ci biir kenkaayere bi def ni mel ba pare daal di daw dem seen yoon jamono ji nga xam ne nag polisu ndaamaatu ñoom yëgal nañ leen mbir mi pare daal di ubbi ab l'enquête ngir daal di fexe topp defkatu ñaawteef yooyu nga xamante ne seen jëf ji tax na tiitaange mu ngi juddu ci askan wa yeewoo ci ñaari pën jamono yile Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alay Hadj Seydou Nourou. aywa bisimilah. waaw ñu dal di ko door rek jogante gu ñëpp di xaar tey jii ci ngoon incha allah 19h30 diggante Égypte ak Sénégal ca Caire lañ koy daal di amal lii di match aller barrage qualification coupe du monde Sénégal nag euh, moom ni ki démb dal nañu amal seen séance d'entraînement bu njëkk waaye tamit bu mujj foofule euh, ci stade bu Caire bi nga xamante ne fa la ñuy daal di amal liggéey jogante euh, laata maanaam ba muy jeex nag. kii di sélectionneur national bi di Aliou ak capitaine bi di Kalidou Koulibaly dal nañ amal jënoo ak lii di journaliste yi maanaam traditionnel conférence de presse d'avant match Aliou Cissé nag kàddu yu mu yëkkati moom mi di tàggat équipe bu Sénégal moo di fi mu toll nii daal lépp yemb na ngi dal di soobu ci googu la jëmante et euh, démb bi ñu agsee ci keer lañ amal suñu tàggat bu mujj ñëpp pare nañ ñaari équipe yi mag ñu mujjee daje ci final coupe d'Afrique ñoo dajewaat dinañ amal jongante bi nag ci xel mu dal confiance ak concentration. Euh, beaucoup de concentration. voilà mi ngi noonu loolu moo di kàddu yu Aliou Cissé daal di yëkkati démb di di conférence de presse bi nga xam te ñu ngi ko doon amal ca wet wa nag kii di capitaine d'équipe bi di Kalidou Koulibaly moom itam ma nga ci woon moom itam am na ay kàddu yi nga xam te daal y na ko la mu xam nag moo match gi xam na ni dana tàng loolu waaye Sénégal dana def kéem bu baax ñu daal di ko déglu Kalidou Koulibaly concernant le groupe euh, je pense que. lu jëm ci groupe bi nag ñun pare nañ ngir jongante suba bi ñaar ñu mujjee daje ci finalu coupe d'Afrique bi nar a xëccoo ngir dem coupe du monde du yomb waaye nag coach bi préparé na match bi bu baax suba dinañ gis match bu mag bu wuuteeg final coupe d'Afrique bi mujj. voilà match googu nag tey jii ci ngoon 19h30 diggante Égypte ak Sénégal euh, danañ ko daal di amal itam en direct ci rajo euh, Futur Média présenté bi ci bu 19h jotee maanaam fanweeri simili laata kon bokk ñuy sóobu euh, ci googule jongante ba tey ci li jëm ci wàllu programme ci match aller lii di barrage yi. tey jii dana am yeneen i jongante di ñeent yi sa des gannaaw Sénégal ak Égypte mi nga xam te ni daal ko lim benn ba 15 lay daal door ci stade des Martyrs ca Kinshasa foofu nag République démocratique bu Congo moo fay daal di ñi di waa Maroc euh, beneen ba 17 ca Bamako stade septembre Mali dana fa tase ñi di waa Tunisie ba tey ci googule waxtu ca stade Japoma ca Douala ca Cameroun Lions indomptables bu Cameroun nag ñoo fay tase ñi di waa euh, Algérie Seck nekk ca euh, Cape foofu la euh, ca euh, Ghana. Hmm. ñu daal di wax ci geneen jogante bi nga xamante ni démb ab mbettal dëgg lañ ci daal di am moo di waa itali ñoom yi nga xamante ni démb dañ leen daal di éliminer dootuñu bokk ci li nga xam ne moo di coupe du monde bu ñu nar a amal foofu la ca Qatar ci xayma nag bii moo di ñaareelu yoon ñu daal di ko tegle maanaam juróom-ñetti at ngi nii kon bokk ñii di waa Italie di réewum football ñu bokk ci les compétitions la ko war a nag moo di démb. dañoo lajj ci match bi nga xamante ni daal kenn xaaru ko woon seen diggante ak ñii di waa Macédoine du Nord Macédoine nag moo leen daal di fekk foofule ci Italie daal di leen daan benn bal ci dara seen bit nag ñu ko dugal euh, ci euh, njeexitale gile euh, jongante. football ngi noonu dafa dafa dafa tëradi. Hmm. parce que c'est vrai que football am na ay certitude mais am na benn dose d'incertitude bi nga xam ne moo ci ne. Hmm. loolu nag mooy faral di indi yu ni mel waaye tekkiwul benn yoon ni Italie du équipe bu gëm naa ne que Italie dina ko gagné. Hmm. mais c' est de jeu yi nga xamante doo ko maîtriser. Hmm. voilà donc. Euh, moo waral kon bokk lu ni mel dal di am ba tax na waa Italie. kon boo ko ñoom du ñu mën a bokk ci google euh, coupe du euh, monde Macédoine mi leen éliminé nag moom dana tase ak Portugal bu Cristiano Ronaldo Portugal moom daal dina daan niki démb waa Turquie ñetti bal ci benn Pays de Galles moom daal dina am ndam yi tamit démb diggam ak ñi nga xamante ni ñoo di wa ko naroon dox ci diggante Russie ak Pologne ak itam diggante Écosse ak Ukraine dañu ko daal di reporter ba jëmmi jamono ndax xam ngeen ni euh, guerre bi nga xam te ne jamono gi moom moo daal di dox ci diggante Russie ak Ukraine ba tax na ñi nga xam te ne ñoo di waa Russie moom euh, lu wóote woon moo di li nga xam ne moo di coupe du monde bi ñoom duñ ca bokk ndax yenn ci ay dogal yi nga xam te ni gars yi jël nañ ko teg leen ko teg ko kon bokk ci euh, ñoom ñu daal di wax ci zone am sud zone Amérique du Sud foofu itam hmm. dina ami jongante ni ki tey ji ci ngoon 23h30 diggante Argentine Argentine lay daal di doon ak ñii di waa Venezuela tiki démb wala boog bi euh, amoon ay match nga xam ne ñu ko doon amal jàppale ne Uruguay moom dafa daal di daan ñii di waa à 0. Colombie daal di daan 3-0 ñi nga xam te ñu di waa Bolivie Brésil moom mujj naa am ndam ñeent ci dara ci digganteem ak ñi di waa Chili Paraguay moom dafa mujj am ndam ci diggam ak ñi nga xam te ñu di waa Équateur loolu nag muy firnde si wàllu classement moo di Brésil moom qualifié na coupe du monde. Hmm. ànd seeg Argentine Équateur ak ñi nga xam ne ñoo di waa Uruguay euh, léegi nag euh, dañuy xaaran rek marche yi daal di jeex euh, ni ki kon bokk mardi. moo di hmm. match retour yi nga xam te ne moo di zone Afrique bu ñu paree nag daal di jublu amal li nga xam te ne daal moo di tirage coupe du monde bi nar a amal ca Qatar ci weeru juin. xam naa hmm. rek ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam ndax Sénégal dem fa. amiin incha allah jaajëf jaajëf Cheikh Tidiane xibaar yi ñeel caate yi dañ ci ànd ak Anna Rocha maa leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbalee ko lu soxal littérature ak euh, cérémonie dédicace téere bi ñu dippee sur les traces d'un enseignant ñi yëngu ci wàllu euh, secteur éducation bi ñu bëri euh, daal di ko teewee ca Sédhiou ki ko bind di Mamadou Lamine yaay nekk jàngalekat ca CM Amadou Mapate Diagne foofee ca Sédhiou ñu déglu ko ci micro suñu correspondant Bakary Konté. ñaari at ci ginnaaw ñoo ngi woon ci confinement ak Covid 19 bi génn man mii nekk jàngalekat dama doon toog sama kër dinaa toog une semaine du ma génn ma ne mais man parce que du ma wut activité jël bi ak fay bind dara donc ci laa commencé wax ci sama carrière en tant que professeur village bi ma njëkk a en tant que professeur mais ba ma ko posté dugal ko Facebook les gens ont commenté j'ai eu plus de 300 commentaires donc nit ñi di ni ma doon poussé ci laa continuer wàcc sama royaume d'enfance wax ci collège lycée université li jot a dund sama voyage en Europe découverte yi ma mais Sédhiou laa màggee Sédhiou laa xam ma dem Dakar université pare foofu ñu affecté ma benn village la carrière d'un jeune enseignant ki nga xam ne il a moins de vingt cinq ans dund benn village bi nga xam ne musul dund village kooku nu muy dundee donc loolu pousse na ma bind ko li ma ci gën sawarloo mooy ba ma ko bindee sama mbokk enseignant yu bëri dañ na dañ si seen bopp parce que boo xoolee Sénégal am nay milliers yi nga xam ne enseignant fruits culturels ci gis-gisu euh, Thierno Diagne Ba di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu euh, gestion des industries culturelles foofu rek léegi ñu daal di adapté wu ak li di numérique bi. mën nañ ne état mu ngi def euh, jéego yu rëy rëy rëy mais dafa am benn aspect bu am solo mooy ressources humaines yi ma lay wax mooy ñii nga xam ne dañ leen tàggat. pour ñu mettre en œuvre cette politique culturelle dañ leen a xaw a betti tuuti betti boobu moo tax ñu bëri tey nga xam ne jàngi nañ ñëw dem Sorbonne ñëw bëgg ñu jox leen seen gëdd bëgg leen ñu ñu ñu ñu reclasser leen parfois sax dañuy am problème parce que juróomu koor rek moo am foofu noonu si ministère de la culture te fu àdduna bi toll ñuy wax si industrie culturelle wax si patrimoine nu mu amee solo naka la mën a jàppale développement dëkk mais premier élément bi comme nu ñu ko waxee si PC mooy ressources humaines ba tax na suñu industrie culturelle ñu ngi mi ngi dem. léegi léeg y a des hauts des bas mais il faut que ñu revenir ci fondamentaux yi mooy ñu xoolaat euh, naka na ñuy jëmbalee ressources humaines ministère de la culture. waxtaan gu yaabu mu sekk ak Fama Dione di ngeen ko mën a déglu ni ki euh, suba ëllëg Thierno Diagne Ba euh, jiite léegi association des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles mooy doon ganuk seen magasin bi ñu jegleel aada ci RFM xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig jotee ëllëg incha allah. seen savon yii di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf picc ngi ci kaw waaye xel maa nga ca suuf ñoom Sadio Mané ya ca keer war faa football ak ñoom Mohamed Salah la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy tey ji l'observateur moom xëy ca yamale xët mu njëkk ba bind ne qualification coupe du monde Qatar 2022 Sénégal ak Égypte tey jii ci la ñuy football match bi ci Égypte bu 7 h ci ngoon jotee journal bi nañu ñu ci bëggee war a njëkk a def moo di summi mbubbum champion d'Afrique tege fële ñàkkante ko ak pharaon yi rakki l'observateur di journal record ne ñu du yomb ndax waa Égypte fàttewuñu coupe d'Afrique bi leen Sénégal xañoon bu yàggul ca Cameroun lenn rek moo nekk ci seenum xel jamono ji moo di fay waaye nag bu ñu fàtte ne Sénégal weesu na fa mu daan waxe ab équipe bàyyi naa la yàlla Sadio mi ngi taxaw Ismaïla Sarr ak Famara Diédhiou dar ko ngir fu ñu jaar indiwaat leen fa ñu jaare fa seeti beneen journal bu xëy moom it ci Égypte Sénégal bu tey ci ngoon bi moo di yéenekaay bii di Sud Quotidien gayndey Sénégal yi ci Égypte ni mu leen jàppee ba ko moo di ay commando yu jëm ci mission Les Échos ne ko moo a dem ca Caire jeex dóor Égypte ngir dëggal li ñu wane woon ci Coupe d'Afrique bi weesu El Tactico di Aliou Cissé entraîneur bu équipe bi di wax ci journal bi ne moom gaynde gu xiif la jamono ji gaynde geneen di Kalidou Koulibaly dolli ci ne duñu topp Mohamed Salah ak di ko bàyyi xel ba fàtte ñeneen ñi attaque bu Égypte bi yépp la ñuy sóor ku dul sóor ëllëg lu la neex mën nga koo diggee président Macky Sall ak yi mu digge woon ci réew mi journal lay nee nañu Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp taxaw na ci tiiñal ko Bougane nee na Macky Sall heure bu nekk mi ngi dig jeunesse réew mi loo xam ne du ko jëfe mukk moo tax ñu indil ko jokkoo tiiñal Macky ngir contrecarrer jokkoo ak Macky gi Macky Sall xewal fan yi diggam ak jeune réew mi waa këram yi moom Bougane Gueye Dany di journal La Tribune xëy bind ne ginnaaw opération déglu waa Dakar Bougane teg na jokkoo tiiñal Macky Sall mi ñu bëgg a tiiñal ak di ko kaa di président Macky Sall fukki fan ak juróom ci weeru mars 2012 ci la déggoon son excellence monsieur le président fukki at boobaak léegi Vox mi ngi koy defal bilan li mu ci njëkk a jukki bokk na ci yaama nekk maane la gudul jeex ci diggante opposition bi ak majorité bi ku sa wujju di sëlam doset tax ñi fara ci opposition bi ñu ci bari li ñu jàpp ci fukki ati Macky Sall yi ci boppum réewum Sénégal moo di fukki at yu mu trahir askan wi ñi koy jàppal tànk maanaam yi farandoom moom président Macky Sall ñoo ngi xamle ci journal bi ne ku xool Sénégal bi fi Macky Sall ñëwagul ak bi Macky Sall ñëwee ak léegi xam ne Macky liggéey na ci réew mi lu naan leen ci journal bii di direct news billaay mooy dëgg ubbil yéenekaay bi directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di kudd maire bu Malicounda di Maguette moo fa nekk nee disparité territoriale yi amoon ci réew mi li ci président Macky Sall liggéey ngir corriger ko kenn xamul nu mu toll mu ne diwaanu Mbour yegg na tey ci développement foo xam ne li ko ko may moo di vision bu njiit réew mi njiit réew mi di Macky ak hôtel bi mu war nee na mooy hôtel bi gën a mag ci ko liggéey lu mat juróom-ñetti téeméeri emploi jóge na ca ñu jóge fa jàll ci journal Le Témoin mi xëy dellu si ci opération de démantèlement gi l'armée bu Sénégal doon amal fan yi yépp ca nord bu si Sindiaga ca Casamance mi ngi ñuy xamal moom Le Témoin ne njiital FIP MFDC di Salif Sadio l'armée bi da koo jekko ba mu ànd ak jabaram daw wëqet ñu daw dem ci libération Koundou Sarr benn boroom kër la bu dëkkoon ca Kédougou amoon juróom-ñaar fukket amoon soxna ak ñeenti doom keroog àllarba ci ngoon lañu ko fekk mu pàndar boppam ci genn garab yéenekaay bii di libération ne xew ci réew mi du jàmm ndax ci njeexteel weeru février ak léegi dégg nañu ci réew mi fukki nit yu fi pàndar seen bopp. seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi. jaajëf Modou Mouhamed Ndiaye mbokk jàngeen jëf xibaar yi buur nag gën na ca fës tey nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars 2012 2022 2012 nag euh, ne woon président Macky Sall jëloon nguur kon fukki at la tey euh, pouvoir ak opposition ku ne na ko gisee euh, pouvoir nag ne daanaka lépp matte na ci wàllu démocratie ak taxawu askan waaye tamit opposition moom dañoo daal jàpp ne dañu rek euh, dal di làmbatu ba sax euh, ñu bëri ci askan wi xamatuñu fu ñu jëm frapp euh, frapp yanamar ak yeneen i kuréel yu bokk société civile nag joxari baaraamu tuuma waa police ndax kii di Guy Marius Sagna ñi mu àndal daal dañoo sax fas yéene dem faca mbaxam ne doone benn ca biti réew ngir daal ne dañ leen a toroxal bañ leen tegee loxo barki démb gannaaw manifeste bu ñu amal ne mbiru parrainage du fi amee ngir élection ñu dégmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet di élection législative mbiru banditisme dëgg moo am foofe ca Touba Mbacke ndax am na ñoo xam dañoo yore seen i ngànnaay dem dal ci kaw ab kànkaayeri ca quartier ñaari pneu kaka moom nag boobule kànkaayeri ak euh, jarbaatam dañ leen a jàll di gaañ lañ joto na jaay nag ci bés ba lépp la ñu jël yóbbu mbokk yi jàngeen jëf mu nekkoon xibaar yi ci yaatal seedu na ko ba ci micro bi technique Assane Diouf may ci digital bi dinaa